dal leen ak jàmm yéen ñi safoo site internet bi di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore yu nga xamante ne kii di Khalifa Ababacar Sall dal dina koy yëkkati moom njiital taxawu ne na daal bu sañoon daal jàmm dina am ci diggante jegenaale Barthélemy Dias ak Ousmane Sonko bu ko defee rek ñu daal di xal diggante bi ndax di nga xamante ne daal dinay xew ni ki samedi bi ñu génn rek ca terrain HLM Grand Yoff nekk na mbir moo xamante ne rek dafa inadmissible kenn rafetlu wut ko ñu fàttali leen nag front pour la défense de la démocratie ñoom ñoo rassemblement mais daal ñoom militant Ousmane Sonko yi ak farandoori Barthélémy Dias daal jaarawuñu taal waaye nag kenn ku ci nekk rek yaa ngi yàq sa morom lu mel ni xamee njiital taxawu Sénégal di Khalifa Ababacar Sall daal dina yëkkati kàddu nag di naqal bu baax mbir mi nga xamante ne moom moo daal di xew ni ki samedi bi ñu génn nee na nag bu fekkee da ngaa bëgg a diriger nag naka ngay nekk di xeex ak xuloo ko xaajale foofu rek ñu daal di xalaat nag euh, doon benn boole sonn doole ba noppi bu ko defee rek ñu mën a diriger réew mi ci jàmm ak nañu fexe rek ba fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xamante ne rek bàyyi nañ leen ñu mën a amal élection présidentielle ci nu mu gën a gaawee ba tey moom Khalifa Ababacar Sall la mu daal di xam ne bu sañoon daal mooy nekk président de la république waaye nag nguur yàlla moom moo koy daal di joxe ba tey rek nee na daal bu ñu ko mayee possibilité dina dox tànk jàmm ci diggante farandooru Ousmane ko yi ak kii di Barthélémy Dias bu ko defee rek jàmm mën a desiwaat ci seen biir nee na nag jot na rek ñoom opposition bi ci seen jëmmi bopp ñu booloo seen doole boole bu ko defee rek ñu mën a am lu ñu bëgg di kàddu yi nga xamante ne rek njiital taxawu di Khalifa Ababacar Sall nekkoon ancien maire de Dakar dal dina koy yëkkatee jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu deen fàttee abone ba cloche de notification ngir am maa yeneen info